waaw nii rek la mën a demee kay Ousmane Sonko yàq nga wax yàq nga wax 94 Walf Sénégal dellu si di leen char di chair mboolem képp koo xam yaa ngi toog suñu site bi di 94 Walf Sénégal seen analyse chronique yi nga xam dañ koy defal saa nekk ci réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di jaajëfal ñu ngi leen di char way leen di toppal 94 Walf Sénégal voilà Ousmane Sonko discours démb mi xam naa ne daal Sénégal de challenge la fay doon moom challenge <laughs> laay sàngara waaye nii rek la mën a demee kay parce que am na loo xam ne moom ñëpp nit ku koy wax rek nga jiita mbooloo doon responsable boo àndee sa conscience daal danga dem ba xalaat ne man est ce que man li may wax c'est normal maanaam nit ku nite dëgg dëgg dëgg laalul dara lu dul naturel nekk naturel yaakaar naa dina xam moom mooy kan daal dina xam lim jiite daal. dina xam ni mbooloo ngi ci ginnaawam daal dana xam ni maire maire boo ko doonee du n'importe voilà nekkum maire ba pare di saaga lu lu ne non am na loo xam ne nekk wax dëgg yàlla lu tranquillement daal moo tax Ousmane Sonko ah wax bi mu wax de moom wax dëgg yàlla xale yi dañ koy def calan si moom ci réseaux sociaux yi moom laay sàngara laay sàngara rek ngay dégg voilà loolu nag c'est parce que lan la mooy ah nit daal wax dëgg yàlla bu nitee ànd ak conscience am wax dëgg yàlla mu am lu mu doon muy génn ay message yoo xam ne ni wax dëgg yàlla ku ànd ak conscience ku ànd ak ku ànd ak conscience am wax dëgg yàlla du génne message yu mel noonu ah kon nag da ngay xam ne nag yaa quelque chose Ousmane Sonko daal yàq naa wax dafa am loo xam ne daal bu amee ndekete am na lu tax mu am rek nii rek la mën a demee parce que dafa am loo xam ne ni moom nit ki yow li nga doon maire yow nga nekk maire maire maireu Dakar mbooloo mu bari topp sa ginnaaw nga jiite ah, ndakaaru gi yëpp nga doon seen maire ba pare wax dëgg yàlla foo tourné rek yaa ngi dagg saaga yaa ngi wax ak di indi ay violence yoo xam ne voilà ndekete boobu moom yaa ngi làq dara ci wet gi benn biteel ci wet gi ah waaye parce que boo gisee tamit gis nga ko gis nga moo tax yooyu baaxut voilà yooyu baaxut nañ koy moytandiku parce que euh, magum jëmm nekk responsabilité ba pare voilà jiite mbooloo ba pare wëlbatiku wax dëgg yàlla xale yi di ji di voilà kon mi ngi noonu daal voilà Barthélémy daal na seetaat bu baax taxawaayam voilà am na yoo xam ne nag buñ la ko junjee di la ko wax mu nekk ci penc mi nag moytal bu baax parce que nit ñi tamit dañuy ci ak riira parce que dafa am loo xam ne moom boo koy def moom bu ñu xoolee ni waa est-ce que kii nitu kese la nitu naturel wala am na leneen loo xam ne nii daf koy laal wala daf koy jëfandikoo parce que mooy tax mu mën a soppeeku mën a changé di wax lu ko neex te dara du ko ci fekk bu mbir moom a reesee rek ci lay door a xam ne moom ndekete ci ay tooxi doone la nekkoon kan nañ moytandiku loolu bu baax baax a baax loolu baaxul voilà danga koy def wala defoo ko nag voilà dégg nañ daal Ousmane lancé daal te message yi mu wax moom wax dëgg yàlla euh, euh, noonu kese kese kese kese loo mën a demee parce que ñun depuis ba ñu xamee Barthélemy ba léegi maanaam daal euh, dafay mel ni rek maanaam li muy wax chaque jour du ko calculer wala du xoolaat vidéo mi voilà parce que bu doon def wax dëgg yàlla dina euh, euh,